خلا آدمي خلافة ملكية خلا آدمي خلافة ملكية متى أدركتنا لي زمان بلية وجئناك نشكوها نفوس سجية سخطنا مرارا waaye ba ñu demee ba laata jant bay so ñu ni benn ngelaw moo ñëw benn kerkeraan wàcc ca maam Seexu Amadu yéeg ca ca lañ tàqali ko noppee gis maam Seexu Amadu muy dem ci kaw ba benn bët mënatu koo gis euh, noonu la maam Seexu Amadu demee moo tax ñiy wax ñoo ngi leen di bàyyiloo xel yàlla ma ma ma defoon démb sunu maam Isa yàlla nettali ni wama qataluuhu wama salabuuhu walakin shubbiha lahum isa mooma ma yàlla uh, waxoon ni kenn uh, reyu ko kenn salabu ko dañoo nuróoleel waa ja doon attaqué ngir dal ci seen kaw melaw isa ñu dóor ko salab ko waaye du isa yàlla waxaat te kanam ni bal rafaahu llaahu yàllaa ko yéege yàlla mooma ko yéege woon nag yàlla moo yéege maam Cheikhu Amadou mu dem kenn mënulaa wax ku ko rey lu coow li bari bari da ngay dégg ku naan diw dañ ko Cheikh dañ ko rey ca Samba Sadio ku ko rey wax ko de te ci jamono yonent bi ku ñu rey rek xam nañ ko la rey maam Cheikh du kenn gisul bàmmeelam kenn mënu koo wax fii lañ ko denc ku ko mën a wax te jamono yonent bi ñañ doon rey kenn ku ci nekk mën nañ laa wax sa wan sa bàmmeel ni fii la tëdd kon nañu nangu def defu yàlla la zalika fadlullahi yutihi man yasha yàllaa koy jagleel ku ko neex mbir mi jërul jërul jërul coow nañ nangu nañu nangu ni maam maam xaadimu rasool daa julli ci géej gi yàllaa ko ko jagleel nañu nangu ni maam Seydina Limaamu daa ñëw bëgg a dëkk àndal géej yàllaa ko ko defal na nit ñi nangu waaye nañu nangu ni maam Cheikhu Amadou yàllaa ko yéege kenn reyu ko amul amul fenn fu ñu ko denc loolu jagle la yàllaa ko def خلا آدمي خلافة ملكية خلا آدمي خلافة ملكية متى أدركتنا لي زمان بلية وجئناك نشكو